pour euh, justement donc ñu suspendre cette fay si det bi nga xamné dañu ko waroon euh, fay euh, depuis donc mois de mai daw mois de mai 2020 ñu ko wéel ba légui Inshallah, allah am nañ njort ne dina continuer en tout cas dina wéy fi ba fin année 2021 loolu nag ñëpp dokkoron nañu si c'est vrai xaatim nañu yu bëre ñi nga xamné ci si suñu ambassadeurs yi def mais euh, comme ambassadeur du Japon mon suis mon fi donc ministre des finances pour nous faire effectivement décision au Japon pour mon mu japp parce que lolu su amé li nga des fay di ko euh, santé et euh, surtout aussi dépenses de lutte contre la pandémie de façon générale dans le cadre du programme de relance économique et sociale donc euh, euh, pour permettre ñaari programme yooyu ñu mun leen téye